de l'opposition Assane Samb xëy jël xalimaam ci réew mi quotidien ne ma Sall lenn kese moo ko intéressé woon ci dialogue national bi mooy wagg-waggal ba am ak kuréel gu yaatu goo xam ne mooy nekk ci ginnaawam waaye nag jamono ji mën nañoo laajee dialogue national bi ana lan la tekki ak lan mooy njëriñ le yéen a kaay gi Dakar Times ne en lu am ba des mooy limitation des mandats mbir la moo xamante ni mu jara waxtaane la waaye nag ci réewum Sénégal impossible la ñetteelu candidature loolee la waa Dakar Times gis nee nañ nag fii nga xam ne mooy réewum njombe la nit taxaw di laaj ñetteelu mandat te na njiit réew mi di Macky Sall nga xam ne Sénégal jox na ko lépp dafa war a delloowaat réew mi si jàmm ak salaam ne 2024 wàllum tegaat ab candidature Macky Sall daf ko war a teg si suufa ngir bàyyi Sénégal ci jàmm ak salaam yéen a kaay gi nee na ñi nga xam ne ñoo dëkk île du Saloum ñoom ay jafe-jafe neen la ñu ama ci lu jëm ci wàllum infrastructure sanitaire yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy ci fawukaayu xale yi nga xam ne nemmeeku nañ ne dafa amee alcool réseau bi nga xam ne ñoo doon yëngutu ci lu jëm ci wàllum jaay ko dañ leen di teg loxo journal bi nee na am na benn commerçant boo xam ne caare la ñu ko jàppee enquête yéen a nee na ñeenti commerçant la ak benn commerçant boo xam ne ab libaane la jamono ji ñoo ngi ci ab garde à vue yéen a kaay gi xëy wax lu jëm ci wàllum politique ci Sénégal nee na ñi nga xam na ñooy opposition bi ñoo ngi waxtaan ñoo ngi xalaat ci ab front boo xam ne front bu mag lay doon ngir ñu mën a jàmmarloo ak Macky Sall yéen a kaay gi de la ne nee na opposition bi ñoo yey lenn rek moo mën a maanaam ab tànk koy tàllal wala ñu bank ko opposition bi dañuy booloo ci seen biir wala ñu dee loole nag ñoom ñoom ñoo koy choisir yéen kaay gi de Les Échos nee na Khalifa Sall ma ngi dajee ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje gi ndax daje na ak moom mu Mamadou Diop Decroix ak Aïda Mbodj yéen kaay gi di Direct News daan nañ xëy wax ci lu jëm ci wàllum démocratie ci réewum Sénégal ak ni mu deltoo ginnaaw lu jëm ci wàllum supprimer ville bu Ndakaaru dàq élection locale yi nga xam ne li ñu koy dàq bëri na te amul fenn fu ñu ko teg lu jëm ci wàllum constitution bi nga xam ne dañu koy faral di jël di ko modifier loolee moo tax journalistes yi nekk ci Direct News ñoom jàpp nañ ne démocratie bu Sénégal dañu ko saax ko caxt-caxtee Abdoulaye Makhtar Diop moom àndul benn yoon ngir nag ñu supprimer li nga xam ne mooy mairie bu Ndakaaru Birahim Seck moom nee na lenn la ñuy xaar ci Macky Sall mu wax askanu Sénégal élection locale yi date bi kañ la yéen kaay gi de la témoin nee na waa Sonacos ana ñan ñoo leen di wàllu ndax jamono ji ñoom ñoo ngi ci ay ñol-ñol ndar nag Sonacos lu toll si ñetti junni ci ay tonnes rek la amagun ci gerte te objectif am mooy lu toll ci quatre cent mille tonnes yéen gi nee na en tout cas askan wi ñu bare bari seen gerte chinois yi la koy jaay mag du fecc yàlla naa dee loolee yéenekaay gi ñu xëy fekk fa Ndiaga Wade directeur usine bu Diourbel nee na lii nga xam ne moo xew ci lu jëm ci wàllum jënd ak njaayum gerte gi ak li nga xam ne moo dal Sonacos loolee catastrophe la yéenekaay gi di Libération nee na Babacar Dia mi nga xam ne mooy contrôle impôt et domaine joxar bi ko baaraamu tuuma ci ay njuuj njaaj ki giraawalee ki tojaange ki wuru ca guddeem gu njëkk fanaan na ko ca Rëbës moom mi nga xam ne moo doon falsifié maanaam signature bu Mame Boye Diao yéenekaay gi di Le Quotidien xëy na wax ci jàngoroy coronavirus nga xam ne moom la yokkee ci réewum Sénégal ni ki démb ci conseil des bi njiitu réew mi di Macky Sall daal di santaane ñu jël yeneen mesures yu bees daan nay waxtu mi ne centre de traitement Covid 19 yi danañu ko daal di activé waat commencé waat ko yéen gi du source a xëy na wax ci xaalis bi nga xam ne moom la ñu génne woon ngir nag dimbale ko ñi nga xam ne ñooy presse Sénégal ak ñu yëngatu ci li jëm ci wàllum culture journal bi nee am na ñaari milliards yoo xamante ni nee na mes ne menteñ diggante Abdoulaye Diop mi ñu dénk wàllum culture ak Abdoulaye Daouda Diallo mi ñu dénk wàllum finance yéen gi ñu xëy fekk fa Mamadou Ibra mi nga xam ne moo jiite CDEPS kuréel gi nga xam ne moo ëmb njaatige yi nekk ci wàllum presse bi ñoom nee nañu maanaam fond Covid 19 bi amul benn dërëm boo xam ne ñoom waa jot nañu ko ñoom dañoo bëgg loolee mu daal di leer ci bopp askan wi yéen a kaay gii di Vox nee na ñi nga xam ne ñooy gros yi camions yi ñoom guro xuma dañoo bëgg amal grève boo xam ne bu tëë dakk lay ndax ñoom nee nañu sonn nañ tàyyi nañ damm nañ dee nañ ci takk der yi nga xamante ni ñoo leen di raket ci kaw tali bi ak jafe-jafe nga xam ne moom la ñu dund ndax ci kaw tali bi amul zone stationnement loole lépp bokk na ci li leen naqari yéen gi di réew mi ko di jeex xëy séq waxtaan wu yaatu ak Koura Ndiaye Kébé mi nga xam ne mooy directrice institut de formation au métier des sports xëy na waax lu bari ci yéen gi wax na ci établissement bii nga xam ne moo nekk bu njëkk ci Sénégal ak Afrique subsaharienne wax na ne ministère bi ñu dénk wàllum tàggat yaram daan na ko reconnaître wax na nan ngay duggee nag ci boobale institut wax na diplôme yi ngay amee wax na ci offre yi nga xam ne moo amee ci institut de formation au métier des sports wax na ne institut boobee ak sport maanaam njëriñ lu bëri ma ngi ci ndax am na rentabilité boo xam ne sport mën na ko am ci réew meek lu jëm ci wàllum kere ay emploi coronavirus ak jafe-jafe yi nga xam ne andil na ko waa sport loolu lépp wax na ko ci biir yéenekaay gi stade yéenekaay xëy yóbbu ñu Angleterre Premier League daanay wax ci victoire bi nga xam ne Liverpool démb am na ko ci kanamu na Tottenham loole moo tax ci bopp classement bi ñoom Sadio Mané ñoo fa nekk ma nekk ci yéenekaay gi du sunu làmb Ama Baldé ak Siteu la yéenekaay gi xëy di càmbara ana ñaar ñi kan moo gën a xarañ